asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi tey ñu ngi am comme invité monsieur Dieng di membre coordonnateur taxawu Sénégal bu Koumpentoum ñu ngi bàyyi monsieur Dieng mu nuyoo présenté wu. jërëjëf monsieur Ndiaye am mbégte lool nekk fii ci plateau wu Evidence TV di nuyu téléspectateurs yi ku nekk sa tur ak sa sant. di tàmbali nuyu bi aussi sama leader muy Khalifa Ababacar Sall bi nga xam mooy président plateforme taxaw Sénégal mu jottali nuyu bi bépp membre plateforme bi di ñaanal aussi di nuyu kilifa diine kilifa aada yi nga xam ñu ngi biir senegal muy jullit ñi muy nekk ci jàngu gi fàttewuñu kenn di ñaanal ñëpp mais ndax di beral nuyoo sama xarit sama wasila di Thierno Abdourahmane Bari Boggal mi nga xam ne nii suñu lépp la donc euh, di nuyu askanu Sénégal di yaakaar ne émission bi ñuy def lépp ñu fi waxtaan dina nekk njëriñ ci population Sénégal. monsieur Dieng tey soo gisee réew mi ak actualité bi ci wàllum politique actuellement ñu ngi ci bëgg a laaj maanaam la yow lan nga ko jàngatee en tant que responsable. jërëjëf monsieur Ndiaye effectivement di fàttali rek maa ngi tudd Moustapha Dieng nekk le coordonnateur départemental taxawu Sénégal président Khalifa Sall. jóge fii ba Koumpentoum Dakar Koumpentoum au moins ça fait trois cent soixante cinq kilomètres donc ni nga ko waxee am na solo laaj bi am na solo lool trop te am nañ mbégte pour mun cee tontu yàlla dafa def ñu bokk ci plateforme bi ñuy wax taxawu Sénégal ba nga xam ni tey président Khalifa Sall moo ko teg après 2014 parce que ñu commencé taxaw Dakar après ñu dem taxawu Sénégal plateforme boobu ndax bokk ci benn coalition bu mag bi nga xam ñu ngi ko tabax ñu ngi ko lancé le 2 septembre 2021. coalition politique tudd coalition Yewwi Askan Wi fu mu nekk ndax ñu nekk ci guddi gu bët setagul mu am ay jafe-jafe ñu gis le 12 juin passé Yewwi Askan Wi conférence des leaders génnee benn communiqué ah di ŋàññi doxalinu Yewwi Taxawu Sénégal par rapport ak li mu dem uyu ji dialogue politique bi loolu nag indi ay jiixe jaaxa ñun itam ñu toog bërki dëmb plateforme taxaw Sénégal président xalifa Sall convoqué les quarante six coordonnateurs départementaux yéen députés yi maires yi ak ñeneen ñi nga xam ñu ngi ci biir diaspora bi ñu waxtaanee communiqué boobu ñu seetlu ni ah dafa mel ni ñun yi dafa nekk benn mouvement de soutien buy dox ngir benn parti di dox ngir benn leader ah ñu bëgg ñoo génn ci li nga xam ñun ñoo ko sos te fàttali. Yewwi Askan Wi ñu ngi ko lancé le 2 septembre 2021 il y avait 25 partis ñaar fukki parti ak juróom ñoo ko si woon mu am ay problème ci biir investiture élection locale yi mu amaat yeneen jafe-jafe ci biir élection législative yi am ñu bàyyi tey mun naa wax ne ni foog naa fukki partie ak ñeent ñoo ci des ñooñu na ñu seetlu bi président Macky Sall wootee dialogue bi dialogue national ñun suñu président suñu plateforme consulter base bi ne ah man de président Macky Sall woote na dialogue national lan mooy ci seen xalaat ñun base bi la quasi totalité ñu ne ah, président Macky Sall ñun dañu yaakaar Sénégal yàgg nañoo dialogue yàgg nañoo waxtaanee problème askan wi ba président Senghor tuddewoon Sénégal pays de dialogue dañu yaakaar war ngaa mën a leen toog waxtaan ci dialogue national mais dañ lay yëpp soo fa demee ñun nanguñu troisième mandat dañ koy xeex ci biir loolu soo demee da ngay ŋàññi lu ñuy wax li dérives du pouvoir tey am na ay prisonniers politiques am na ay prisonniers d'opinion notamment ay journalistes ñi nga xam ne tey parenage bi gàllankoor na parti yu bëri loolu dañ ko war a waxtaanee ñu dindi ko la révision des articles L29 L30 L57 bi nga xam ni moo la xañ nga bokk yow xañ ko Karim Wade ñu bëgg ci sukkandiku xañ ñeneen ñooñu aussi ñu waxtaanee ko ñu dindi ko. loolu moo tax ñu dem fa mais ñu toog donc communiqué boobu pour dellusiwaat si waat si ñu ne dañ ne ci biir article yi nga xam tey mbala chart yi yi nga xam moom moo sos Yewwi muy la chart de Yewwi ak l'accord cadre loolu dañ koy ŋàññ mais ñun bi ñu ko jàngatee dañ ne defuñu compromis defuñu compromission parce que compromis mooy lan bala compromission mooy lan yow danga am ay valeur am ay principe dem dajeeg nit waxtaan ak moom mu ne la sa ngëm-ngëm say valeur say principe da koy teg fii man ma jox la lii mais ñu xool ne ni ñun defuñ compromission parce que Sénégal la ñuy waxtaanee comme que Sénégal la ñuy waxtaanee te yaakaar naa képp ku seetaan télé le 31 mai. kaddu yu président Khalifa Sall jël foofu c'est de ay kaddu yu responsable la li wone nekkuñu compromis nekkuñu compromission te xeex di nekk yóbbu nañ fa baatu opposition radicale muy Yewwi Askan Wi muy F24 donc tey ñun sortie boobu dañ koy ñaawlu te mënuñoo génn Yewwi parce que président Khalifa Sall moo sos Yewwi dañ ko bëgg fàttali sénégal yi pendant huit mois la jël tànkam seeti ay leader ñu mel nii Euh, Habib si mi ko yore tey seeti ay kilifa diine muy président pur Serigne mustapha si jam Serigne Moustapha si euh, bu numte bu sëñ bu almaxtum ñoom ñoom ñu bokk ko donc vraiment ñun dañu yaakaar ne ni li ñu sanc bokk ci kenn mënuñu cee betti. d'accord léegi gis nañu aussi tamit euh, ci biir taxawu parce que sooy xool waxtaan ngeen ko seen biir mais daa mel ni ci biir taxawu aussi am na leader yoo xamante si ni comme ku ci mel ni Barthélémy Dias gis nañ ni ci taxawu Sénégal la bokk te participé wul ci dialogue bi donc loolu est-ce que nañu ko jàngatee benn crise bu am ci biir euh, taxawu Sénégal. Euh, non amul parce que jour boobu suivre nañ Barthélémy Dias bar xam nga entité la ñuy invité Barthélémy Dias il fait partie de de taxawu Sénégal donc président Khalifa Sall moo jiite yi dem na maintenant ndax moom bi am na benn émission télé bu mu def def na day bokk ci ci commission yi. jotuloon terme de référence terme de référence yi génne nañ ko validé nañ ko mu actuellement mu ngi ci biir dialogue bi mu ngi discuter mais loolu c'est le travail des commissions li xewoon le 31 c'est luy tubaab di wax lancement la dañuy ñëw ubbi dialogue bi ubbi dialogue bi na du du ñaari bopp yi ñooy dem su président Khalifa Sall toogee foofu rek ça veut dire que Barthélémy Diaz mu ngi fa. léegi par rapport ak sa dëkk sa base mooy sa chef mooy Koumpentoum nan nga jàngatee situation bi foofu. waaw Koumpentoum ndax dama fa nekkoon candidat ci élection locale yi wees yàlla def euh, yëf yi doxul mais wolof Njaay mooy wax ni nii jéem tële du gàcce te ñu nekkoon le plus jeune candidat amoon programme bu am solo mais yàlla def génn gagné mais ndax benn euh, président bu Nelson Mandela da doon wax ni nii ci combat su ma ci dama ciy bokk gagné bala ma jàngat ci jàngat naa ci lu bëri Koumpentoum dafa nekk euh, département bu bokk ci région de Tamba superficie am tey moo ëpp même région de Thiès am fukki commune ñu dund ay jafe-jafe ndox jafe-jafe yoon jafe-jafe sécurité donc yooyu yëpp ñu ngi koy dund mais surtout biir Koumpentoum national un une bi daf ko traversé te chaque fois dañu seetlu ni day am ay accident yuy am foofu te day rey ay nit moo tax daal ñu doon ñaan gouvernement bi di ñaan autorité yi yore infrastructure ñu defal ñu ay dos dans dans ce chef-lieu pour amoindrir accident parce que ku xam Koumpentoum tali bi moo ko xaaj ci digg bi lycée bi ak collège bi beneen côté la nekkee te ay xale yu ndaw dañuy traversé loolu dafa am ay risques moo tax jafe-jafe ndox mi wax naa ko ñun tey xale yi Koumpentoum yu bëri am nañ ay jafe-jafe ci jàng parce que pour nga mën a dem rooti saretu mbaam ngay yóbbu te pour nga am benn bërigo ndox deux heures trois heures de temps ngay def ak yeneen ak yeneen wàllu foncier bi jafe-jafe la donc yooyu yëpp seetlu nañ ko biir Koumpentoum moo tax su ñëwee ba ci télé bu mel nii Evidence TV nga xam ñu ngi koy seetaan dañuy profité def fi plaidoyer comme que yàlla def na gañewuñu ñi fa nekk tey xanaa ñu gestu askanu kumpentum ñu def ko suñ ko deful ndax suñu yàlla dimbalee ëllëg ñu nekk ci ndombo tànk yi dina bokk ci suñu ay préoccupation yi nga xam tey dinañ ci taxaw électricité bi def nañ ci jogo yu am solo parce que man nekkuma opposant boo xam ne ni nihiliste la su ma gisee nguur gi def lu baax dama koy nangu mais su ma gisee loo xam ne safaan war dama koy ŋàññi courant bi wax dëgg yàlla liggéey nañ ci lu am solo mais kumpentum yaatu na yaatuwaay boo xam ne am na ñoo bëri ñoo xam ne tey dañu am problème courant mais nax li jéego am na ci donc loolu bëggoon nañ ko feddali fii eh, ci jafe-jafe yooyu nga xam tey population Koumpentoum mu koy dund. ñu ngi waaj a terminer émission bi ñu bàyyi la rek eh, xalaat loo xalaat ci par rapport ak eh, réew mi ak ni muy doxee. waaw réew mi man dama gëm ne nii tey rek ñu ngi journaux yëpp dañoo wone. yàqu euh, nu ampleur yàqu-yàqute yi nga xam ne nii événement premier deux et trois euh, juin jur na ko Sénégal plus de deux cent milliards de pertes université li ñu fa gis yàq-yàq yi bëri na lool euh, yaakaar naa ne tey dañu war a teg réew mi ci digg bi pencoo ko bañ koo paccoo responsabilité bi nag état mu ngi ci opposition mu ngi ci ku nekk am nga ci part de responsabilité yaakaar naa ndax dañuy wax soo amee ëmb ci biir gaal bul ñaan yàlla sa ëmb rëcc mais ñaanal yàlla gaal gaal gi teer su gaal gi teeree à deux semaines de la fête de tabaski xam nga tey ñu euh, Auchan baal leen ma ci tour bi genre publicité yooyu nga nga licencier trois cent personnes am ñeneen ñu ñàkk liggéey ñii ñu yóbbu leen chômage technique te à deux semaines de la tabaski tout ñu ngi waxtaan ni ñu doon gisee xar dakaar mbala ci yeneen gox yi amatuñu ko loolu metti na lool moo tax tey war nañ toog di interpeller waat une fois de plus kilifa diine yi di interpeller l'état du Sénégal ñu xam ne ni réew lañ leen dénk dénkuñ leen ay mala ñu mën a taxaw ba stabilité am fi ñu def li nga xam ne réew mi dina nekk ci jàmm su nekkee ci jàmm lépp jàmm ci jàmm la xëy di dellu ndax di sant Koumpentoum fi nga xam moom laa am ñëpp ñu ma fa bokkal di leen sant di leen gërëm ci émission di remercier aussi ndax seen seen euh, président directeur général ce n'est par la première fois defal yàgg nañu xamante nit ku baax la di leen ñaanal aussi li ngeen xam ne sumb ngeen ko wax dëgg yàlla ngeen am ci succès. amiin amiin amiin kon kontaan nañ ci dalal bi ñu ngi koy rappeler di monsieur Moustapha Dieng coordonnateur départemental bu Koumpentoum Sénégal monsieur bi Dieng ñu ngi lay gërëm di la rafetlu di leen jox rendez-vous beneen yoon ci l' évidence TV jërë ngeen jëf.